cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di réew mi TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañ koy doore kat xamante ne kii di Abbas Fall daal dina koy yëkkati rek ginnaaw mu nekkee genn RFM matin ki tey ci suba ji la mu daal ci xam ne kii di Macky Sall moom képp dong rek moo mën a indi jàmm ci biir réew mi ak lépp loo xamante ne rek ab karange la ba tey rek la mu daal di xam ne nee na am sax langum politique bi nag jamono ji daal dinay bëri coow lool coow laa ne kur ci dëkk bi lii di dialogue national nag bu ñu ko bëggee ci biir réew mi rek faaw ñu génnee Sonko ca ndungu siin gi nga xamante ne rek foofu lañ ko xam ne rek mooy réew mi da a bu Macky wàccee bu wàccul day continuer di dox kon nag jot na rek mu daal ñuy abal ci nu mu gën gaawee ba tey rek député bi la mu daal di xam ne moo di nag décision bi nga xamante ne a may ndam na nag bu nekkee dafa bëgg a taqalikoo ak Sonko wala Bassirou Diomaye Faye na ko leer ne Pastef moom dina am ab candidat boo xamante rek dina bokk ci jongante yi mbir mu nu mel nag danger bu rëy rek ci réew bu mel ni Sénégal ndax kii di Macky Sall bu fi yeboo nag mu dem profito ci occasion bu nu mel jëm a clôturer dossier Sonko ak Bassirou Diomaye Faye bu ko defee rek jàmm mën a del si réew mi ndax moom ci yëmi boppam leer na ko ne bu fi toogoon juróomi at sax mënut a gañe jongante présidentielle yi wala bu nekkoon ne sax wóolu na kii di Amadou Ba ne dina gañe jongante présidentielle konoon nag dina maintenir boobu les calendrier mbir mu nu mel kii di Abbas Fall moom moo notification ngir amaat yeneen i